leeral ba mu leer wax ji bari na ngawti ngawti gi bari na am ko mouvement Fouta Tampi am ko Fatimata Ndiaye pendant un mois ou deux mois Fatimata Ndiaye nii Fatimata Ndiaye naa bindal nañ ma lu ne waxal nañ ma lu ne waaye ma jàpp rek taw bàyyi parce que je suis une lionne caaxaan daanelu ma fokk yóbbuwuma tey jii ku ci bëgg am lu la leer xool ci saal bii rek doy na mouvement Fouta Tampi dañoo àndoon bëggoon a def benn marche ñu nekkoon ay góor maaraam yi bokkoon ci bi ñu nekkee ay góor ñu def marche ba dernière minute dernière moment préfet nangu ñoo autoriser marche bi ñu ne compte préfet sax nangu loo autoriser bi foog ñu dem too ñu dox ñu dem ci marche bi ñu def ko luñ ci am jël ñu daal dee wàcc place de l'Obélisque biñ fa wàccee gendarme policiers yi jàpp ñu yóbbu ñu police quatrième defe naa maara bi ñu yóbbu police quatrième arrêté ñu man kese maa ci nekkoon jigéen ñu génn ci biir police quatrième bi ñu tënk fa ne nañu def ñun ñu fi ñun ñu jàpp te gisuñu kenn bu ñu génnee nañu taxawal mouvement bi ñu waxtaan pare bi ñu génnee ñu ubbi benn group pour taxawal mouvement bi ma ci jigéen be man kese ma ciy jigéen tamit ñoom ñëpp ñu ay góor ñu ngi may dégg ñoom ñëpp ñu dellu ñu toog tuuti groupe ba demul ñëpp a ma daal di ñibbi sama kër toog xalaat xalaataat ne man mii damay jël komba bi porté ko te damay taxawal waa Fouta seen àq ak seen yelleef dama koy xeex ba nga xamante ne Fouta dina jël àqam ak yelleefam ma tëdd sama kaw lan dëpp woo ku ñu wax Adama Sy alias Double Cerveau ma ne ko man damaa bëgg ubbi groupe bu tudd mouvement Fouta Tampi ensemble sauvons le Fouta micro bii mouvement Fouta Tampi ensemble sauvons le Fouta ba ma ko waxee mu ne ma waa d'accord mais man nag awma ay nit waaye yow boo amee ay nit ñu boole leen ñu def ma ne ko nag ubbil ma groupe parce que xaw ma nu ñu ubbee groupe bi mu ubbi groupe bi ma jox ko cinq personnes muy Fatou Faye Diankha ñi doon conférence presse keroog moom mi nga xamante ne Pastef moo ko investir fële ca Ranérou Ferlo muy Baye Niass muy muy Ablaye Sow moom mooy mooy secrétaire général dafa feebar depuis barki démb loolu moo ko teree ñëw muy man ak keneen ku nekk tamit raneeru bañ ko ubbee ma jël numéro Baye Niass jox ko aadama si alias Double Cerveau ma ne ko dugal ko mu toog deux jours dugal ko ma woo ko ma ne ko lu dugaloo ko mu ne ma yow kii da am ci moom confiance ma ne ko waaw mu ne kii aw ma moom confiance ma ne ko pourtant xeexkat la dugal ko rek ñu dugal ko ma def ko chargé de communication euh, chargé de relation extérieure ma jël ko muy ñëw sama kër am fa sens interdit fa lay fanaan. fa lay yendu fa lay nekk ay jour ma jàppale ko ci lu bari donte xeexkat la woon xamuñu ko ko dugg YouTube boo tàppee Fouta Tampi benn rek ngay gis original baa ngi toog muy Fatimata Ndiaye waaw man du ma nañ naan pom du ma romb néew xëy na forma bi rekk leen boole am na yoo xam ne du ma ci tontu ñuy dem di dem di dem ñuy citoyen comme tout un chacun ñun APR lañ nekk donte ndëkk bu sunu dëkk bu soxlaa. dañuy summi mbubu politique bi dem jàmbaarloog waa waa APR taxaw ne leen hey lii ak lii ak lii te defe naa ne tey jii mouvement Fouta Tampi ensemble sama la Fouta xàll na yoon Fouta xàll yoon goo xamante ne ba keneen ku ñëw war ngaa mën a xeex ak ak yelleefu Fouta bokk ci pa parti ça ne veut parce que fii ñun ñi fi nekk ñëpp ku nekk am nga parti boo bokk danga koy fësal wala nga bañ ko fësal day fekk nag dangay xeex xeex bu noobul nga xam xeex bi foo jaar ay nerf bi fekk sañu suñuy kër ñu ñu ñu ñu génn Sénégal yëpp Dakar yëpp dem ba Touba nëbbatu fa ñuy dem di toog di wax lu ne ñu koy wax c'est parce que Fatimata Ndiaye toog na ne président Macky félicitations donte ñun ne sommes pas satisfaits à 100 pour cent nous sommes satisfaits à 70 pour cent li tax ma wax loolu man am naa samay raison parce que mooy ñun dépp suñuy enceinte ba jonn yàlla tey ñun daana maayu mosuñoo am yoon mosuñoo xam luy tali kon président bu demee indi ay oto ak yëpp ne travaux yi nañ ko commencé travaux yi nañ ko def ñun li ñu war a taxaw mooy taxaw ne ko jaajëf bu defee nit ki boo taxawee di ko xalab bu defee taxaw amal sañ-sañu taxaw ne ko jërëjëf la nga def gis nañ ko ñu ne luy ndeyu bàyyi man ne ko jaajëf aw ma droit naan kon jaajëf parce que dama war di xalab man je suis pas un opposant non non non non bokkuma ci benn parti opposant benn na bokk naa nag ci benn parti opposant muy parti Fouta di xeex ak ak yelleefu Fouta président ki nag yóbbu na fa ay bagage ñu commencé ba ñu xel dal ba ma génn ma wax waaye ba tey travaux yi fa ñu yemoon foofu la ñu yem ñu koy ñaan nag defar defal nañu ay promesse doyul dañoo bëgg mu ñëw defaral ñu sunu Fouta gee rawatina sunu daane maayo pose premier pierre bi nga xamante ne def na ko ca Wuro soogi mu ñëw yeggali ko phosphate ndendoori bi mu lijjanti ko emploi des jeunes mu lijjanti ko ñun jeunesse bi amuñu problème ak président Macky sàll mais les autorités ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Fuuta ñun ñoom ñoom la amal problème may xamal keroog génn nañ ne daa ne Fuuta Tampi coordinatrice bi Fatoumata Ndiaye dañ koo dàq bokkatul ci mouvement Fuuta Tampi nekkatul sax membre Fouta Tampi ñoom ñooy Fouta Tampi authentique mouvement Fouta Tampi ñu ngi nii ba tey mu ngi dox groupe baa ngi dox te désormais bés ni ki tey mayatuñu kenn kenn muy waxati ci turu mouvement Fouta Tampi ku ko waxati yor nañ suñuy avocat maître El la Diouf ci la bokk te suñu récépissé mu ngi nii mën ngeen koo jël ñu am suñu kayitu récépissé ñu am suñu kayitu récépissé mu ngi nii mu leer naaj donc nous sommes reconnus national et international lii des nag ñun du ñu taxaw fii kuy wër bës comme te man ñaaw yaay ñu ne nañ laal gi Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mënatuma permettre kenn muy wax ci au di du mouvement Fouta Tampi ku si génnati nag di ci wax mbaa nga toog ci plateau télé maa nga koy mbubbawoo yoon def si yow daan maître El Hadji Diouf nag sunu avocat la waxtaan nañoo ak moom waroon naa ñëw toog fii mais dafa amee bopp buy metti dernier moment la ñu ko wax di daal bëgg nañ koo leeral defe naa ne rek këyit moom moom la tubaab xam te këyit baa ngi nii génnee naa ko ñëpp a teg ci seen bët beneen bi mooy mouvement Fouta Tampi ensemble sauvons le Fouta ak ak yelleefu Fouta moo ko tax a taxaw te ñuy xeexal aussi ak ak yelleefu Fouta ça n'a rien à ak mbubb bi ñu sol parce que fii nii ku nekk am nga foofar ñoom ñooñu keroog doon def euh, conférence de presse damaa bëgg benn par benn ñu wax ma kan si ñoom moo nekkul moo nekkul Sonko kan si ñoom moo nekkul Pastef laa bëgg ñu wax ma ci kenn ñoom ñëpp waa Pastef lañ Mamadou Gaye Pastef la mu leer nañ Baye Niass Pastef la à 100 pour cent bi ñu amee problème ba ñu aree ba ñu arrêté ko fee dikk fekk amul woon carte de membre Pastef dañoo woo Jibril Ngom. pour mu utal ko carte de membre parce que dañ ko bëgg ñu mujjee ne ko ñu utal ko ay avocat avocat bu siw boo xam ne ay millions ñoo koy jël moom lañu ko jëlal ci la ko waa Pastef njembe duggal ko seeni site pour mu ñëw di daal sama kaw ma ne désormais nit ki nag booy wax sa fulla ak sa fayda am na yoo xam ne doo ci dugg te man defe naa ne oto ba ca kanam la ñuy corne te mouvement Fouta Tampi ensemble sa le Fouta mun nga sa kanam te du nangoo gestu te ci yoon la ñu nekk te incha allah léegi léegi ci lu yàggul di ngeen gis dara may sant nag ah di gërëm waa mouvement Fouta Tampi yëpp ensemble Sauvons le Fouta naan ca kaw ca kanam ci Fouta rek jëm ca kanam jërë ngeen jëf.